may gis ngay dugal say statique parce que ay xarit lañ yor naa sa numéro mais affaire man fu ma toog dama may touché euh, ban jaar-jaar nga am ak sa yaay. moom laa lay wax damay ñëw rek sama yaay bi ma jugee bi ma demee bi def tôlier ma xam ni dafa yéex ma def mécanicien xam ni dafa yéex dama dem Serekunda ci kaw taax bi ndem si yàlla fàllu galas maa ngi koy siyaar bu baax di ko di ko di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana si fàllu moo ma doon tàggat foofu may jaay ay téléphone ban fàllu galas benn galas la fàllu Serekunda la nekkoon ci kaw taax bi di jaay ay téléphone foofu man may jaay téléphone ci kaw taax bi foofu marché Serekunda def nga marchand ambulant marchand ambulant Serekunda def naa ko doxul ma jóge bi dem Séné si laa doog a dem senegal bi ma demee senegal ma dem ci benn méca benn place yu mécanicien bu tudd Mbay Kebe Mbay Kebe Liberté la nekkoon may liggéey ci moom mécanicien affaire yi yéex dama doon doxee Fass Mbaaw ba Liberté 6 di yóbbu añu mécanicien yi. mais Ketchup est-ce que sénégalais xam nañ lii ci yow. bëgg naa ñu xam ko tey ndax il est temps bi ma demee ci place Mbaye Kébé liggéey fa mécanicien ba pare ma xam ni doxul te ba tey li ma bëggal sama yaay mënuma ko am dama fa jóge dem liggéey ci benn waay bu ñu naan aada méca aada soudeur la ma liggéey suudar amoo siis géejawaay bi ma liggéeyee soudeur ba muy waaj yàq samay bët te ba tey xaalis bi dafa xaw a yéex yaa ngi dégg ma ma ne bàyyil ma bàyyi lii seeti leneen bi ma bàyyee seeti leneen xam nga fan laa dem carreleur laa dem defi ak benn waay bu ñu naan galas carreleur billaahi wallaahi tallaahi yàlla moo ma tiim te ñi ma xam ñi ma yar dëgg suñ neexee ñu dem def micro trottoir waay wala ñu def ko Gàmbi dinañ la wax kan mooy Ketchup bi ma defee carreleur ba pare damaa dem def plombier ak sama benn nijaay bu ñu naan sa Sadex Njaay may liggéey ak moom plombier billaahi wallaahi tallaahi euh, musu ñun euh, sénégalais yu bari ñu jàpp ne bi daf lamb ji moo ko moo si si làmb ji la commencé ko ba tey lamb xaajul bay ñëw bi ma defee plombier ba pare dama bàyyi plombier parce que boobu yëpp maa ngi xool nu ma amee maanaam tey da ngay wàcc ñu jox la 2000 francs nga paas ci ndékki ci li ci des doo doo ko mën a jox sa yaay te damay bëgg a jox sa man dama man bi ma amee bi ma amee 13 ans la ma sama papa gëj a xottil yére tabaski ak yére korité ndax daf ma bàyyi ma dem ak sama bopp ndax dafa bëggoon ma am jom tey jom bii ma am ginnaaw yàlla ak yonent bi sama papa def ci man ndax daf ma teel a wax ni da war a amal sa bopp. te sam papa bi mu ma naan da war a amal sa bopp boobu yàllaa nga koy suturaal ba tey nii yàllaa nga koy may li mu war a am yàllaa nga koy may li mu bëgg waaye dafa bëgg yar ay doomam xam pour ñun ñëpp tey soo gisee ma yàlla may ma gëm sama bopp bi ma gëm sama bopp liggéey rek gëm ko tey sama papa te maa ko ciy sant bu baax. sama papa daf ma doon wax soxlawu ma sa dara soxlawu ma sa dërëm loo am jox sa yaay tey looloo ma doon motiver ba nga xam ni tey bi ma bàyyee plombier bi sa deex. sama nijaay boobu maa ngi koy nuyu dama dem parc Caro boo demee Rue Floris am na fu ñuy jaayee Caro falaa dem liggéeyi liggéey fa ay at barke alxuraanu karim bàyyi Rue Floris nag dajeeg sama benn xarit boo xam ne bi may def métier yi yëpp sama benn xarit mi ngi def formation yàpp ñu naan ko laay mu ndaw ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana sama xarit la benn bakkan mooy sama xarit benn bakkan kooku laa doon àndal ti moo ma jël tette ma tey jëlee ma ci liggéey yooyu yëpp ne ma kaay xam naa ni jàmbaar nga xaalis rek nga bëgg pour teral sa yaay léegi ñëwal ñu ànd ci yàpp bi ndax yàpp bi moo ëpp xaalis ci la ma jël récupéré ma def ma boucher. kon boucher bi si da doon yëngu ci wàllu boucher exemple wàllu yàpp di jaay yàpp di servi yàpp boo demee géejawaay marsa Ndiare moo nekkoon local bu dàq joxe yàpp ci àdduna te laay mu ndaw sama xarit boobu moo doon rey nag yi kooku korite day jar mu korite day jot mu rey ay 40 nag yenn saa ay 50 maay xuloog moom sa ne ko nag yi dafa bari ñu am 25 cinquant man ak moom di liggéeyandoo di daanandoo laay mu ndaw su ma wàccee mu jox ma journée ci moom laa doon topp moo nekkoon sama patron te ñoo tolloo woon at vingt ans la amoon ma amoon 25 ans ñuy ànd di liggéey mu mu may. su ma wàccee mu yëkkati benn dix mille jox ma wala su ma wàccee mu yëkkati benn quinze mille jox ma xam nga loolu tey li ma bëggoon maa ngi koy am ndax sama yaay su ma ko joxee cinq mille dinaa dese dix mille sama yaay man bi ma koy jox chaque deux jours junni yàgg na boobu aw ma dara. non non na trop mais. Euh, please ñu ñu mun a ñu mun a ñu mun a continuer émission bi métti na nag wax dëgg fa yàlla métti na mais dañ lay ñaan rek nga bës sa xol ñu mun a continuer émission bi yaay moom dafa sori ci nit ah dafa sori ci nit dafa sori ci nit dafa sori ci nit ah wax dëgg fa yàlla mbokk internet ñu lay man damaa bëgg sénégalais yi man soo gisee may sonn nii ba su ma neexoon États-Unis laa nekk maa ngi am xaalis yàlla nga may suturaal am naa lu fi nit mën a am rek am naa ko tey lu ñuy respecté nit ci dëkk bii rek am naa ko muy seen papier muy seen lépp yàlla may na ma ko. Euh, euh, Ketchup euh, kon après bi nga bi nga jógee ci ci ci ci ci ci ci ci buuse bi moo foofu nga intégré ci ci làmb ji suma juumul. Babs damay ñëwaat ci sénégalais yi tuuti li ma la wax am naa lu ne ci dëkk bi. tey fii da ngay gis ku dem Maroc rek wala mu dem fu ndaw jóge fa ñëw di jaay sénégalais yi affaire Babs foo fekk maa ngi béggee maa ngi kontaan loo sénégalais yi maa ngi leen di feccal maa ngi leen di wayal maa ngi kontaan ci ñoom xam nga lu tax damaa bëgg Sénégal Babs tey bu ma président Macky Sall soxla woon tey ma jël passeport dëkk beeg seen këyit yëpp jox leen ko bëgguma Sénégal rek laa bëgg bëgguma lu dul Sénégal barke alxuraanu karim lii may wax ku ko weddi nga yëkkat nga woo ma téléphone kilifa na ma woo ma ñëw pour nekk ak moom foofu noonu ma am ci lu ma jàpp Sénégal dama ko fii laay naan ñu ko dëkk bii dem Sénégal rek laa bëgg di yeewoo ak sama yaay di yeewoo ak samay mbokk Sénégal jàmm ji fa ne kilifa diine yi fa ne ambiance yi fa ne Sénégal bëggante baax teraanga gi amul fii fii xaalis rek te foo ma fekk gis nga ma man aw ma benn jot man Sénégal émission bi pour exemple di vrai Euh, euh, daaw bu mu fi ñëwee laa bëggoon ñu def ko maanaam pour dire deux ans maa ngi topp sa ginnaaw mais amuñu woon temps pour def ko dama koy seede rek exemple pour que tout temps yaa ngi concentré saa yu ma la wooyee nga ne Babs man tey damay liggéey lii nii dama forcé sa balaa ñu koy def. dëgg la man dama ñëw ci dëkk bi pour teral sama waajur. ñëw ma fi pour ay détails. wala ay toog ay grand place. wala ay waxtaan. ku ma romb nag dinaa la jox cër bi ma la war